puis Abdourahmane na nga def ça va salut. Ça va, gars, il y a une fois. Oui, goûté quoi, quoi. On va faire une autre de ah. Oui, salam alaikum. donc au Sénégal ñu ngi ci ku ci nekk ci tuuram ak santam di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci di ñaanal ñëpp jàmm di rafetlu taxawaay diaspora bi tey ci Espagne euh, di leen félicité di leen wax seen taxawaay am na solo waaye gis nañ tamit waa France aussi tamit seen taxawaay ci marche bi donc mu nekk li nga xam ne

moy ñi ñu téye malhonnêtement donc euh, di len sant den gërem di ñaanal kilifa diiné su ma waxee kilifa diiné gaay xam ngeen ñi may wax donc euh, di lu taxawaay jeunesse bi du len encourager ñom ñëpp di wax né euh buñu bayyi xex biñu xex ni parce que dama am lu leer li ma wax li ma waxoon tey ci suba gis nga defoon na live bala may mu jënd dem mu nekkoon benn urgence mu ne mu nekkoon benn urgence ci li nga xam ne ci loolu laa nekk mu nekkoon benn urgence ooy maa ngi direct maa ngi YouTube ah, waaw mu nekk benn urgence boo xam ne dama jënd wax ko très rapidement parce que loolu la euh, ñoom euh, ma Macky Sall euh, Marème Faye Sall Antoine Diome Moussa Fall général Moussa Fall Seydou Bokar Yàgg euh, Ismaïla Madior Fall ak euh, Farba Ngom loolu la ñuy nas la ñuy nas mooy boo leen gisee. tëju ñu Ousmane Sonko rëbës ñu dem tej ko euh, Sébikotane parce que dafa am li ñu namm ci mom li ñu namm ci moy euh dañ ko fa tej tëjum ndegandeku xol askan bi nak lay comporto ci xex bi surtout jeunesse bi lan mo la nekk seen bu fekke xex bi tar euh, bu ñuy xex xeex bu metti Macky Sall nee dañ nañu libérer Ousmane mais buñu ñu xeexulee dina ko jëlee Sébikotane exilé ko bu ko exilé wul génnewul Sénégal dina ko yobbu Kédougou wala Tamba donc ñom li lañu nas li moy li nga xamné li motax moo tax Ousmane Sonko. Euh, rebeus mais ñu tej ko sebi kotaan pour ça ñu paré pour def sen jikko caay-caay bobu mu yomb ci ñom parce que dañuy japp ni sebi kotaan euh, sebi kotaan mooy gën a yomb ci ñom que ñu tej ko rebeus parce que bu ñu paree pour jël pour déporter ko pour exporter euh, exiler ko dina am problème légui ñu tek ko foofu nag sebi kotaan pour taax xool taayirlu di xool comportement askan bi ak jeunesse su Sénégal bi motax mo def live tay ci suba balaa may dem jeun di len xamal ni buñu teggi dara ci xex bi jeunesse su Sénégal bu wañi buñu bu teggi dara buñu teggi suñu tank na ñepp jeun bien vrai que ñom ñi ngi dag internet bi ak kii ak yooyu mais Macky Sall gis na ni xex bi mu ngi gëna a tar te weekend bi ñi ñaan sénégalais yëpp nañu rallier Dakar parce que il faut ñu jeexal xex bi na rañ ñëpp rallier Dakar pour ñu jéem a eggali xeex bii ñu paré ci ben yoon ak Macky Sall parce que euh buñ ko defulee buñu téggé suñu tank dinañu dina ko exiler parce que ñoom seen taxawaay lu ñu gis mooy Ousmane warul nekk ak ñoom bokk ak ñoom Dakar loolu laa am lu ma leen wax moo tax tey dama jënd fajar mu def live bi wax ko na ñëpp taxaw combat bi nañu continuer ci combat bi taxaw ci comme luñ ci man euh, loolu mooy li nga xam ne mooy li xew waruñu bàyyi Ousmane bon Euh, ci grève de faim bi ñu évacué donc euh, hôpital euh, ñi wax né ak joue avec le feu nañu la vie de Ousmane Sonko ken du ko quoi la nous, nañu assumer sen responsabilité parce que Antoine lu mu doon wax ci assemblée nationale mais qu'il wax dof la rek wax ku daanu ci c'est-à-dire wax la wax nit ay la ni matuñu pour antanuñu réewum Sénégal antanuñu ko la woté sen borom antanuñu ko ñom la fa tek sen bop ko fa té nous incarner incarné ci voilà donc euh, les assemblé assemblée loolu sur euh, euh, repêcher des gens qui ont pillé l'économie de ce pays donc nous ñun <laughs> intéressé quoi madame Khalifa Sal Karim c'est du cinéma il sera candidat Ousmane sera candidat, juridiquement, il sera candidat. Waouh, il est éligible. D'après leur entendement, donc, ils, ont dissous le passif. Waouh, papier. Mais ils ont dissous le passif qui bop, À coalition, ils boum, te la candidature du président Ousmane Sonko, coalition, boum, de gagner l'élection. Beaucoup, le l'air là. Mais, nous? waruñu teggi suñu loxo suñu tank ci xex bi daf ñu warul sax teggi suñu tank ci xex bi daf ñu warul loolu moom il faut que ñi patriote ñi xam ko ne la na ngeen toujours di bàyyi xel ci kaddu Ousmane cette fois ci bu xex bi tàmbalee fii léegi Macky Sall abaluñu du ñu arrêté nañu continuer xex bi parce que moom mi ngi ci xex bi Galsen di la ziar moom mi ngi ci xex bi donc lii na ko ñëpp xam

parce que si vous voulez, li ma leen wax ci suba des sources sûres, exilé parce que loolu lay des mais boo gisee des def parce que gis na xeex bi ni mu taree kon patriote faire fu ñu suñu continuer continuer organiser pour pour combat bi dafa am solo top parce que li ma ne di faral wax projet bi

loolu am solo la nañ ko continuer ñoom ñi ngi teg seen i pexe ñun nañuy teg suñu pexe ñu xool fu ñu jëm ñun ak ñoom waaw te euh, dafa am li nga xam ne il faut xeex bi mu jël ci beneen tournure loolu duñ ko wax fii duñ ko wax fii ci ci live bi dinañ ko wax ak ñi ñu ko war a waxal euh, bu boobaa dinañ seet naka la def pour ñi mën a ko ñi mën a atteindre objectif yi Mais cette fois-ci, je pense que euh, ni ñuy jegee but bi jegewuñu ko ñoon ci xeex yële parce que bu ñu nee ba dugg xeex ba dugg Sandaga donc ñu ngi jege ñu ngi gagné terrain te terrain boo ko gagné doo ko bàyyi sa ennemi moo tax may wax sénégalais patriotes yi barricades yi ñuy def ci tali route nationale yi ñuy baare pour ay autoroute bi ak ak péage bi ak yoyu partout yenn yenn voies yo xamné vraiment foofu la koom-koom bi di dem barricade yooyu ñu bari tali bi nañ continuer di ko bare parce que nit ki mënoo xex ba nga am avantage nga gagner ay terrain ba par ci xeex ba par nga bay nga pertat ko baxul dafa melni rek li mel doon yàgg wax rek révolution boo ko commencé doo ko donc ñun xex nañ bañu barricade tali yi nañu continuer di barricade tali nañ leen bunkeriser parce que tey Kafountine dañ ko tëj booy bu mu commencé ba léegi Kafountine tëj nañ ko jën mënatul jóge Kafountine pour dugg si Dakar jën mënatul jógee Casamance pour dugg si Dakar parce que booy dañ ko tëj dañuy tëj Kafountine carrément dañ ko tëj verrouillé camion frigo mënul dugg camion frigo mënul jën même bu dee da ngay dox individuellement sax booy dox yow rek pour dem dañ lay laaj foo jëm Kafountine boy ci tali bi relève ñëw ñeneen wacc dem te di continuer donc mu nekk xex complètement ñun xex boobu la wara def ñu ñu tàmbalee bi wara ñu ko teg yota wara ñu ci wañi dara a continuer ci xex bi taxaw ci bi parce que xex bi ñi xex ni moo ba léegi Ousmane Sonko ñu parce que Macky Sall bés bu ñu teggee suñu tànk rek muy exilé ko ñoom ñi ngi toog di xool parce que Macky Sall day laaj xam na lu xew parce que la mu gis ñoom bu xeex bu tàngee rek dina ko bay parce que loolu la bu xeex bu tàngee dina ko bay léegi fu mu ne day toog di xaar analyser ñu xool fan la ñu toog naka lay demee bu affaire bi kii rek hop dana yóbbu dana jëndee Ousmane Sébikotane exilé ko bu ko yóbbul Tamba yóbbu ko Kédougou dina ko yóbbu fenen kooku lu leer laa len wax ni lu leer lolou mo nek sen sen plan ñom moi j'ai dirigé plus de combats man li ma dirigé xam lo ko sax vous croyez que les gens ont peur de venir là-bas moi je suis venu là-bas vous n'avez rien compris des bâtards comme Massambala xam leen dara

parce que nous faut, dire, mais le transfert ça dépend sur l'engagement des jeunes si le combat continue Macky Sall n'osera pas le faire parce que nous ko def ñemewu oui allo. oui oui. allô Oui. waouh, ah, Waouh. Idemran ba ambeni ki umejo info. Hamna hene nga nga pasar si kwa kunye bieko patrioti. Mhm. Wow, cause hana nit ñay wa ay sarax ma xamna itam il faut ñoom tenir compte ci loolu. Moo nekk na ñu génn ay picc. Ay picc. Yu bëri. Mm-hmm. Waaw yu bëri. Waaw. Waaw. Waaw. Dina mën ay 16 millions yooyu. Mhm. Donc info foog nit ñi jàpp ci quoi def ko. nee na dafa war a ànd kii daal nee na ñu woo ko Baxam Ñas. Baxam Ñas ñi am numéro nañ koo woo parce que dëgg naa ko mu koy wax ci émission pour ñu jëndee ay picc. seize mille. waaw ma ñaata picc la wax. jën ay picc ñaan bàyyi ko waaw seize mille et quelques picc. après nee na gars yi dañ ko waaw xam ci di ko def. non mm-hmm. buñ ko amul sax nañu atteindre objectif rek. waaw léegi li des xëy na boo gaaw seize mille six cent quarante la wax seize mille ñu nañ ko ci plateau bi seize mille six cent quarante et un picc waaw na ko Sénégalais yëpp waaw parce que euh, fin bu toll nii ba waaw waaw a xeeb ñu leen wax parce que gars yi itam nit bu ñu leen laa laawee biir wax benn affaire ku ñu defañ war a def affaire fu mu toll foog ñu ñu ñu taxaw si loolu mhm. ñeenti diaspora ku ci mën di woote sa famille mu gënal la daal nga def ko mooy ñu tas ko quoi. waaw seize mille six quarante un. waaw ku ci nekk nga jël loo mun jënd rek jëndal bàyyi mu dem. waaw waaw bàyyi mu dem. waaw lu yéene loolu moo solo. Mm. léegi bu ñu ko woowee ku déglu audio bi ni nga xam ni nga ko war accompagner parce que lu wax en public la kon nag waaw. waaw mais am na am na ñaan yu mu wax nee nañ ko contacter aussi. waaw beneen affaire bi. Mm. am na aussi ku ne dañu war a nañu génne ataaya kafe mm-hmm. mm-hmm. ak euh, ataaya kafe ak gerte waaw waaw bu ñu boole glace ak kii comment dirais-je beneen bi ataaya café gerte waa la wax ak euh, meew mais mm-hmm. li ci di baax mu ñuy comme tey booy nekk jigéen soor noonu di di di di di di kii comme ku mënoon am loolu di ko jox booy ñu ko ñu ñu waa café Touba wala ak ata yëpp la daal yëpp. waaw d'accord ñu jox ñu ñu servi ko ak booy di ko naan ku ci ko mën a sax si place publique rek baax na. Mm-hmm. waaw nee nañ ko def daal waaw. Mm-hmm. boole na sax glace ak euh, kii gerte surtout gerte bi ñuy xolli. Mm-hmm. waaw bu ñu xool nekkul gerte mais bu ñu xool. bu ñu xool gerte kemb. dama xam ne mi ngi waxee ni si waa gars yi dégg kemb quoi kon ngeen jënd gerte kemb café. waaw Touba ak euh, meew. waaw meew ak mhm. ak kii aussi. joxe ko. ak glace. ak glace ak glace aussi. ok bu ñu ko mënee defar waaw. Ah, ak seize mille six cent quarante et picc pitax. ku ne li nga mën ci jënd ci pita nga jënd ko waaw ay ay kii keneen na ko wax lii keneen na ko wax. waaw ah, ah, non je récapitule kay xam quoi. sarax yi kay moom du jeex bëri na quoi waaw waaw sarax yi yooyu rek sarax yi bëri na quoi. Mhm, mhm. waaw waaw mhm. ko def quoi parce que am na ñu joxe nee na ci place publique juma. waaw. Ah. waaw waaw fu yi nekk rek parce que affaire mbooloo la. waaw loolu a waxoon daal naa la wax ci laaj bi pour gars xel quoi parce que ku ci mën a def rek nga barkeel. ok. waaw. d'accord. waaw ok. ok allez. waaw Lolo quoi donc. Euh, Yo, dama juum laal la dama juum dama juum laal la ay kii pare gu ma ngay përëg përëg fii bon Alors,

loolu mooy li nga xam ne gars il faut que ñëpp jàpp ci bu ko defee euh, combat bi mën a xaaral na muy supprimer éléments yi parce que col bi dafa fees je peux pas appeler oui il faut que <laughs> ma supprimer lii quoi euh, supprimer affaire daal dafa fees ci téléphone bi. Mm, mm. Voilà. Voilà. Donc, Lolo. Euh... <clears throat> Fatou Fatounia, il a le même état que Youssouf. Wow. Non, Kokoubom quoi. <laughs> Combat. Non. Affaire bi couche de fond, là. dafa am li ne ñi ngi ci parce que gis téléphone bi téléphone bi nga la moom la Ousmane récupéré téléphone boobu te mu jaral leen ñoom ñi xaacu daw dum dugg ci ay ay ay fu kër Ousmane kërin téléphone bi la fa nekk bomb la la fa nekk bomb la attendez euh, on euh, euh, téléphone bi la fa nekk dafa garaaw de parce que gars yi <laughs> xaaral oui téléphone boobu dafa garaaw. salaamaaleykum. waaw ku baax. allo. sëñ Dabaax. waaw da nga def. waaw na ngeen def waay. Mhm. maa ngi. Massamba ba te faire foot bordel ba te faire foot waay doo kat waay damay ñappan ah, doo ma ram jógal nga naan ma ay détails yi woy allez-y. waaw la sant ci liggéey bi nga nekk. Right. Uh, ah, the Anchorage Boy. Right. Uh, ah, li may njëkk lancé comme message. Mm -hmm. Uhum. mooy armée sénégalaise. Uhum. Ah, mm -hmm. euh, c'est vrai que em casa Mm -hmm. y a certaines zones yoo xam ne gendarmerie wala amul police mhm. armée bi moo fa nekk waaw mais <coughs> armée bi dañ leen war a jàngal lan mooy euh, naka la ñuy def pour def crowd crowd control crowd crowd control mooy ni ñuy contrôler foule mhm. ba duñ leen rey mhm. ñoom dañ leen waroon a jox ay lacrymogène ak ay grenade mais waruñu jël ay balles réelles di ko di ko tirer ci population bi loolu armée bi waru ko def. Mhm. te damay ñaan communauté internationale. Mhm. parce que lii bokkul ci droit bi nga xam ne gouvernement am na ko pour manifestation bu amee ngay jël bal réel di ci population yi di rey population yi loolu li may njëkk a. institution internationale yi ne Sénégal nañ dem Casamance. ñu enquête ñu fexe loolu mu dagg parce que booy yi ñu rey Casamance di leen tiir bare di leen tiire bar loolu dafa war a dagg. waaw waaw ñoom dañuy jàpp ne peut-être crime boobu kenn dara du leen ci fekk ñoom loolu la ñu jàpp quoi. non non loolu loolu massacre la loolu mun na dem ba indi ba indi ba indi génocide biir Sénégal. ah nañu dem rek nañu nañu topp Macky Sall nañu dem ah, rek. mun na dem ba indi génocide Sénégal. te ah, li ñu sëngalee li ñu Casamance li ñu sëgalee Casamance yi ba di leen rey noonu. Mhm. mel ni ñoom bokkuñu ci Sénégal wala duñu ay nit loolu dafa war a dagg. Ah, waaw waaw liggéey Macky Sall la de. waaw. waaw léegi nag loolu nag moom dafa war a dagg léegi ñi nekk ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi ñi communauté les droits de l'homme ak yooyu ñu dénoncé loolu. nañu mhm. dénoncé loolu parce que ma Macky Sall ak armée bi ñu ngi commencé di rey population bi te loolu droit international mayu leen ko. waaw loolu nañ ko yuuxu fu ne wax ko fu ne ñu commencé ko dénoncer gën koo dénoncer parce que loolu teguwul ci yoon loolu moom lay njëkk a wax ça il faut que ça arrête léegi nag booy yi booy yi c'est vrai ñu ngi xeex xeex bu am solo bu doy waar bu dëgër ci région bu ne mais léegi il est temps que ñu concentrer xeex bi yépp ci Dakar mm-hmm. booy yi nañu ut ay yoon ñi ne ci dëkk yëpp nañu ut ay yoon jubal Ndakaaru parce que léegi xeex bi bu ñu ko xeexati koñ yi nañu bàyyi koñ yi xeex bu ñuy xeex ci koñ yi xeex nañ ko nañu song wala ñu song institution internationale wala ñu song ay dépôt de dépôt yi dépôt yi nga xam ne moom la ñuy def pétrole yeeg dépôt yu gën a graaw yi point point yu sensible yëpp nañ leen attaqué mm-hmm. nañ leen attaqué même bu ñu mënee attaqué commissariat yi nañu attaqué commissariat yi bu ñu leen bàyyi Vous nous bu défendre nous ci point yi gëna nous sensible yi ba paré nañu fexe ñu dem Dakar nañu djubal Dakar ñom ñëpp nañu djubal Ndakaaru jéxal foofu xeex bi. Mhm. waay. waaw loolu mom moy moy moy légui nañu dajale doole bi dem jeexal xeex bi ben yoon mais nu ñu éparpillé woo noonu bi yag na lo té day a bu continuer dafay gën a yàgg te nekk ni soxlootuñu mën mu nous a parce que ñom dañuy gëna am ay stratégie parce que ñoñu ëpp doole ëpp ñu ay moyens mhm. léegi xeex bi foog ñu jëm koo jox benn doole bu am doole ñu ñëpp ñu dajaloo boo yëpp dajaloo dem ndakaaru jeexal xeex bi benn yoon mu jeex ci la ñu gën a am doole mm-hmm. loolu moom mooy sama deuxième message troisième message bi mooy dama bëgg Ousmane Sonko ak Pape Alé Niang mm-hmm. ñu jéem a bàyyi seen grève de la faim bi xam naa ni yaakaar na ni loolu mën na leen ci génnee am na doole mais Ousmane Sonko on a besoin de toi boo déggee sama message on on a besoin de toi en vie dañ la soxla yow moo moo xam ñaata at nga dem ci kaso bi xaw ma ñaanuma ko yàlla nag bëgg naa suba suba nga génn te am na yaakaar ne léegi nga génn mais grève de la faim bi bàyyi ko ñu dañu la soxla nga dund Pape Alé Niang dañu la soxla nga dundu parce que bëgg nañ bu ëllëgee nga taxawuñu Sénégal parce que journaliste yi ne Sénégal yi ma gis yëpp ku dul yow ak boy bi ma gis mu nekk Walfadjri yen ñaar ñooñu xam naa déontologie dëgg ngeen di dawal. Hmm. te bëgg nañ bu ëllëgee ngeen jàngal boy yi lan mooy journalisme ñun ngeen dund lañ leen gën a soxlaa ngeen di dem duñu fi bàyyi boy yi duñu am ci ku ñu roy. Ousmane Sonko ñun on te veut en vie li ngay xeex nag xam nañu ko mais dañu lay ñaan bàyyil grève de la faim bi. y a d'autres moyens yu ñu mën a teg pour nga yàlla génnee la foofu. incha allah te yàggatul am naa yaakaar ni yàggatul. Mm-hmm. lépp nag la ñuy wax. Mm-hmm. léegi nag portable bi nga xam ne nag moom la Ousmane Sonko am chance ba yàlla dugal ko ci loxoom parce que lii miracle daf cee nekk. lii libéré Ousmane Sonko ak li koy delloowaat mu amaat ay droit am ba bokk ci élection yi par force. lépp mi ngi ci information yooyu mi ngi ci biir portable parce que ay tooxi duuna yu doy waar la gendarmerie def ci biir portable boobu seen communication yu gën a doy waar yi mi ngi ci même complot pour éliminer Ousmane Sonko mi ngi ci biir portable boobu. complot pour éliminer yenn kilifa diine yi mi ngi ci portable boobu communiquer yenn. yenn Marème Faye Sall yu bon yu mu doon def yëpp mi ngi ci biir portable boobu. waaw portable boobu muy biir Ousmane Sonko pour mu rétablir pour ñu delloo ko ay droit am portable boobu nañ ko utiliser nañ ko utiliser nañ ko war a bu mu nekk kom ay information ya MC Niass jotoon ba doole ba mu waroon am pour mën a def yenn yi defu ko. portable waaw portable boobu nañ ko utiliser parce que loolu. Mhm. biir gendarmerie ngay parce que ay def. nañu ba communauté internationale yi Sénégal et ce est ce que Macky est en train de faire au Sénégal avec sa femme et beaucoup d'autres autorités ce qu'ils sont en train de faire au Sénégal. kon portable kon Con portable bi kon portable bi arme la ah. arme bu pour pour Ousmane Sonko. yalla qui oh. tek ci bir loxo bo gisee nu mu bu nit di xalaat c'est pas hasard mu ñëw dugg ci loxo Ousmane Sonko xolal ñooñu nu ñu fa gis nga affaire affaire sarax yi ngeen di wax. na trop. mais gis nga li li dindi barrage nag bu xonk tur man maa dama ko xeex génnee ko. di mm-hmm. xeex ñu am doole ñu xeex ba baaraas boobu dañ. Mm-hmm. gis nga bu ñuy génnee sarax pour xeex. Mm-hmm. lu xonk la ñuy génnee ce ruus est mooy danger. gis nga tubaab lu rouge rek la respecté. gis nga ko bu ñëwee ba feu rouge day taxaw léppam lu jëm ci rouge tubaab da koo respecté rouge mooy liy xeex. lépp lu ñuy def nañ ko def ci rouge.

mais li ma leen wax ni téere la dara mënu koo dindi te buñ koy def nañ ko def Kaffrine. Kaffrine nañu jënd gëléem bi Kaffrine waaw nañ ko def Kaffrine sarax boobu nañ ko def biir Kaffrine parce que Kaffrine mooy diggu Sénégal te diggu Sénégal mooy am saxaxum xalaw yasum le nord le sud est ak ouest boo ñëwee ba ci digg bi mooy courant boobu ngay gis ci digg bi mooy Sénégal digg boobu boo déggee ñuy wax Sélébou le Sélébione yoon la nekk ci digg bi moo tax ñuy wax. Hmm. kon Sénégal boo fa bëggee def dara mu dëgër dëgg dëgg dëgg Kaffrine nga koy def mu mun a mu mun a mu mun a mën a am doole bu ñu bëggee tajal li mak Sall yëpp def ak yu bon yooyu ñu def Kaffrine lañ koy defee. Mm-hmm. voilà léegi nag portable boobu. Mm-hmm. Ousmane Sonko damaa bëgg mu génn ci grève de faim bi parce que ñun dañ ko soxla mu dund. dañ ko soxla en bonne. waaw mais portable bi dañu soxla. portable bi il paraît que ah. li ma dëgg ñu ne mu ngi Japon. waaw mais ñi euh, Japon mais ñi war jot information ñi ko yóbbu Japon ñi war jot information boobu dinañ ko jot te bàyyi leen rek. Mhm. am na ko xam ne moom moo leen gën a tekkeeku fuuf. Mhm. waaw mooy booy bi nekk Canada moo leen gën a teg ñoom xam nañ ko bu baax booy boobu. <laughs> moo la wax rek mooy bu mu bu mu yàkkamti. booy boobu moo leen gën a dof fuuf kooku moom. du sax nit dafa dafa dafa sànni dof la dof la xam nga dof moom booy xeex ak moom moom bala yeboo il faut s'attendre à tout. à tout quoi. waaw il faut s'attendre à tout moom xam na information yooyu yëpp dina ko jot mais nañ ko utiliser nuñ ko war utiliser. waaw il faut mu il faut moom aussi tamit nañ ci. il faut mu utiliser information bi avec intelligence quoi lépp ci biir xam na ko moom ci loolu xam na li muy liggéey liggéeyam ci bopp liggéeyam. ci ci ci li muy liggéey euh, euh, euh, xam na ko te maitriser na ko. Mm-hmm. man li may li may li may li may wax rek mooy Ousmane Sonko moom mooy touche pas à Ousmane Sonko ak noo munti day ak looy munti def ak foo munti toll boo nekkoon malaaka sax pour laal Ousmane Sonko parce que boo ko laalee dina am ñu dox sa diggante yow Ousmane Sonko looy def nag pour mu jik Ousmane Sonko man boo ko defee ànd naa teg yow. Mm-hmm. Mhm. mais moom moom information yooyu bu ko jotee bu mu dox na nekk nit il faut utiliser information yooyu parce que information yooyu lii lii dimbali Ousmane Sonko fa la moom moo la mërgën. Mhm. moom moo la mërgën bu jotee ci information yooyu. jot na ko de que moom ñëpp ngi daw di ñëw di di ko jéem di ko jéem a ñaan wala di ko jéem a artu wala di ko jéem mais li ma koy xamal ni portable boobu baatin moo tax mu ñëw ci loxo Ousmane Sonko. bii Ousmane Sonko la pour mu libéré wu ci yu bëree bari pour fitnal yuñ koy fitnal ak yuñ koy def yépp foofu lay gën a leeree boo gisee yenn autorité gendarme yi di contacter sa waay di jéem def yeneen kii xam nañu toj-toj yu ñu def foofu. ooy parce que man ñu ñu demee persécuté kër jàmbur kër nañu waa kay booy yi nañu orienter xeex bi ñoom ñëpp ñu booloo def benn bu ñuy dem bu ñuy dem Dakar bu ñu booloo groupe nañuy dem benn par benn ba ñoom ñëpp ñu daje ndakaaru ñu ñu institution yu même si nous jubawlul palais nañu attaqué institution yi nga xam ne Sénégal. ok même courant bi buñ ko coupé internet bi lu ñu coupé nous ko coupé xeex bi nañu def loo xam day ci ñëpp benn yoon. oui parce que am na am na internet boo xam état bi état bi nous éliminer courant yi nous lu ñu pour pour pour maîtriser économie bi nañu dem pour sensible foo xam kenn du leen fa dañu dem ñu nous fiil Sénégal, def lu ñu a def de Sénégal yëpp bu ñu fait. Sénégal bi a dans yoon comme ça tout le monde va se lever et faire face avec Macky Sall. ah ok Oulimatou ok parce que nous sommes seen c'est parce que sonnuñu. bu ñu daggee courant bi courant bi solo leen internet bi ñu dagg lépp institution parce que kenn waratul am internet au Sénégal affaire dafa war a ci ñëpp. waaye parce que nañu attaqué réseau yi nga xam ne waa réseau yi nga xam ne mooy tax dara dootul dox Sénégal réseau yoo xam ne. parce que ay militaire nekkuñu fa ay policier nekkuñu fa ñu dem yàq ñu dem yàq foofu fu courant bi bépp bépp bu ñu mën a yàq lañ ko yàq. waaw il paraît que am na fu laal état bi quoi parce que état bi am connexion boo xam pour état bi la ak banque yi quoi. Euh, euh, gars gars booy ñu ngi koy ñu koy ñu ngi koy tal ñu ngi am na fu ñu ko tal waaw kay loolu la loolu mooy target target bu mag bi mooy nañu nañu nañu fexe ba connexion bi nga xam ne état bi moom lay liggéeyee. banque yi moom la ñuy liggéeyee ak état bi. def naa mooy yi nekk ci poteau yi ak yooyu nañ ko attaqué dépôt essence yi sax buñ ko mën attaquer nañ ko attaquer talen leen essence yi buñ leen mënee attaquer nañ dem zone yo xamné ay policiers duñ fa nek di leen sonal ñu dem dugg fofu tal fofu essence yi mu ngi doxal réew mi même usine yi doxal réew mi lañu dem ñu attaquer leen na metti ci ñepp ben yoon comme ça tout le monde va subir les conséquences comme ça quelque chose va se nañu def loolu booy nañ dugg ci usine yi usine yi gars yi liggéeyee na ñëpp sonn benn yoon nañu dugg ci usine yi taal usine yi taal lépp lu ñu mën a taal lépp lu ñu mën a yàq comme ça tout le monde va se va souffrir une bonne fois pour que l' affaire se résolue une une bonne fois pour tout pour que affaire bi jeex mais bi ñu bi ñu nekkee nii di kocc koccal ak ñoom ñoom bu ñoom toujours ñoom ñu ñoo ñuy ëpp ay avantage parce que ñu ngi toog ci ay milliards.

non dépôt essence yi mandi yi bu ñu leen mënee taal nañu leen taal lepp lu ñu mën a comme institution boy yi te amul ñu fa nek di leen garder boy yi nañ dem ci institution yi seen kër yi seen mbokk yi pour ñu xam nañu dugg fofu taal lepp bu ko défé affaire bi mettandoo ci ñëpp mu jeex. Hmm. tant que ñu ngi koy kocc koccal ni ak ñom rien ne va se résoudre. man maa la wax lii parce que yàgg nañ ko def après mu gi lu muy lu muy obligé mooy def soit mu bàyyi Ousmane Sonko wala mu dugg ci yenen affaire yi sédat bu ëllëgee mu defaat la même chose. ok loolu ñun arrangé wuñu donc waaw euh, mais ñu def comme Mali rek soit ñu jógandoo ñun ñëpp daal di jubal Dakar affaire bi jeex ñëpp noppalu ko affaire bi mu metti ci kilifa diine yi metti ci képp kuy dox biir Sénégal mu metti ci yow lool ndax ñu mën a jeexal lii parce que tant que méttiwul ci population bu ñu yëg ko du ñu jóg. Mhm. waaw loolu na ko Sénégalais yëpp xem booy yi sonn nañu. Ils ont tout donné, ils ont tout fait pour le pays. Sacrifier le. vie, def mais ñi ko sékkal dañu mhm. ëpp ci wàll yu bari léegi nag ko ku la ëpp doole booy ak moom da koy attaqué ci point yu sensible mhm. point sensible parce que bari wuñu te amuñu doole donc boo nekkee groupe bu ndaw te amuloo doole da ngay xool fi sa ennemi gën a sensible nga attaqué ok def fa sa doole yëpp benn yoon nga xam ne loolu moom boo koy laal rek moom problème dina am te problème bi général lay doon affaire bi ñu généraliser ko loolu mooy xeex bu mag bi stratégie boobu lañu war a teg waaw ok loolu la booy yi war a def waaw booy yi nañu jàpp loolu te li ma wax ci portable boobu bala yoboo moolaa mërgën bàyyi ci loolu xel parce que billet buy dimbali Ousmane Sonko ëllëg dafa nekk ci biir portable boobu waaw kon il faut il faut mu xam mu xam la koy secret utiliser que il faut mu jokkoo ci na na ci surtout avocat Ousmane bu koy pour ko ñaan ak ne nañu affaire ci yoon ñu affaire bi mu su parce que am na ci ay ay ñeneen ñu ci ne xam bon parce que waaw waaw am na ñu ne ci biir ñoo xam ne bëgguñu ñu feeñ de buñ demee bay bay bay organiser ay coup pour rey ay doomu sëñ Saaliw pour pour pour empoisonné na ko ak ñeneen ñu ñu bëggoon empoisonné yeneen yu yu yu yu yu yu yu yu yu bii cucu boobu doomu cucu boobu Antoine Diome doomu cucu la waaw moom cucu moo ko jur cucu baayam jonguwul Antoine Diome baayam jonguwul cucu la ko cucu doomu cucu la moom doomu cucu la ansoan Diome en cas bii cucu. kon xaraam bu bon bi lay. kon kon même kilifa diine dañ leen bëgg a assassiner quoi mi ngi foofu. ah. ma ne complot bi yëpp ñu ngi ci biir yu pour rey kilifa diine quoi. bari mi ngi ci biir yoo xam ne ma ne ba ci biir gendarmerie seen toj toj yu ñu def mi ngi foofu en tant que gendarmerie léegi moom moo laal mërgal ñi nekk biir gendarmerie bu koy woo na leen wax ni affaire yëpp nañu delloo Ousmane Sonko liberté nañu fexe ba delloo ko ay ay àqam ak ay yelleefam te élection yi ñu jëm ko jaarale si yoon il est temps que tout lépp jaar ci si yoon ñoom nag tricherie ak sàcc ak def band grand banditisme la ñu nekkee ci biir réew mi te loolu gis nga kilifa diine yi bokk ci af am na yeneen kilifa diine yu bokk ci kuubi de am na yeneen kilifa diine yoo xam ne ñu ngi ci kuubi bëgg bëggoon ñu faagaagal Ousmane Sonko parce que yaakaar nañu bu ñu faagaagalee Ousmane Sonko loolu mooy indi jàmm Sénégal. alors ah jàpp waaw ñu ci biir. affaire bi def ma ne la fu mu àgg gravité bi fu mu àgg sax xamuloo ko. kon portable bi moo tax kon gars yi dem dem attaqué kër Ousmane quoi. Sénégal li li li fay def gisoo gisoo dooleel xale yi sax li ko wàññi Macky Sall ci biir géej gi la ko def. booy yooyu ñu sacrifié ci biir géej gi naan ay dañ doon dem ay ay ay ay xaw ma fan naufragé ay immigrant lañu. di tuur seen tuur yu mag yooyu te gaal boobu bokkul sax ci gaal buy dem ci ci di immigré ñu jël boo yooyu dem si géej leen foofu booy yi foofu xam nga loolu musul am Sénégal depuis bu bu immigré booy commencé jaar ci géej yooyu ay Espagne nga koy gis ay naufragé nit yu dee yuy génn foofu en Europe koy gis mais musoo ko gis Sénégal musul am. ñoom ñoo def seeni ku comme comme li ñuy def ci bus bi dem taal bus bi def fa seeni affaire pour créer benn ay ne ay terroriste dañ koy dugg minable yooyu xamuñu sax lu ñuy defee yenn kii ba kenn du ko xam dañoo dañoo tuuti li ñuy def ni maîtriser wuñ ko ci ay tooxi duuna rek la ñu nekkee bu li ñuy def nag dafa ñoom ñëpp dañ ci fi mu ne nii xam nañu bés bu Ousmane Sonko jëlee réew mi ak ku mën ci jël réew mi yow Macky Sall ma wax la même boo fa tegee say nit. gis nga fii ku fi ji gerte gerte ngay gobbi ku fi ji kaani lu mu yàgg-yàgg kaani ngay gobbi loolu mooy stratégie bi yàlla teg fi ci àdduna bi boo liggéeyee oto oto ngay am dégg nga wax ji loo fi defar loolu mooy meññ sa kaw ëllëg fii loo fi ji fii ci àdduna bi mu gaaw mu gàtt moom ngay ji ëllëg Ok eh, ça ça sa bàmmeel dans la fa fekk. d' accord xaaral ma jël ñeneen ni quoi baax. ok waaw ok d'accord. D'accord. d' accord waaw baax oui allo. oui. Oui. Wa mais wa ouais, Douglo de douglo de Haran quoi Douglo Yari Force, Douglo. allo oui. d'abord. oui. Non. mu. sant. mais une information Wa mais y a Ousmane mi ngi urgence mi ngi urgence a Ousmane di bind yéen ngeen koy man yëg non man mais il faut galvaniser les troupes hein. oui mais. Ah, mu ngi urgence Ousmane. oui oui mais te du moom ak

Ousmane mi ngi urgence ñun xam nañ ko bu yàgg man jot naa information bu yàgg. na xeex bi gën a takkarnaate kon. loolu la li fu ñu war a wax mooy na gën ñi ñi gën ñi xeex loolu la mais du Ousmane mi ngi urgence loolu mooy wax ji ñu ah. soof waaye hein. ay information bind bind bind loolu dafa tere Ousmane Sonko du dem urgence bind mais grève de faim ku ko def sept jours lekkuloo foo jaar nga dem hôpital c'est normal c'est normal

même boo mais même même ponkal nga def grève une semaine dañ lay hôpital où est le problème. Non, sax a ba c'est ça dañ lay dañ lay complètement quoi. non non non yow ni yow ni yow yow Ousmane dem hôpital mais Ousmane je xam na pas dem hôpital parce que grève de faim la def. grève de faim c'est pas la fin du monde.

Ousmane loolu la leen wax ay bën a nëpp di jooy fii bugg ko. mais moom mi ngi xeex ñun nañu xeex Ousmane mi ngi xeex ñun nañu xeex ci biir ñoom ñu def yëpp ñu ngi xeex ñu bëri ñu ngi def grave de fait. léegi ngay wax da nga ni waa ji rapport de force la xeex ak moom. xeex na mooy mooy solution. xeex rek fii amul benn explication fii xeex rek mooy solution bi. xeex xeex kono téegal de mu arrière jeex na.

ah grand ñu ngi siyaare grand dafa ñu nangu ziar. ñu ngi siyaare alhamdulilah baax taxawaay. ñun mm-hmm. mm-hmm. nag ñu ngi maa ngi fi Espagne bi ci Pastef Espagne bi bi bokk. Mm-hmm. nekk membre mais da wax wax am solo la mais grand. est-ce que xam nga ni Macky Sall ak gouvernement bi génnoon benn loi boo xam ne si gis mu yor ko copte montre rek ñu door ko bala fital waaw mais nañu xeex rek mais Macky Sall day daanu il faut ñu xeex bàllu fetal acca waaw waaw seen loi boobu waaw mais garaaw amee ah, ñuy rey nit ñi mais est-ce que alof euh, yaay dafa ne jinax day bari pax est-ce que police ak yi ñooñu ñooñu ñooñu xam ne ñoo ñooy dooyu boor yi di leen rey est-ce ñu ñu doon remarqué ñoom kon dëkk topp leen dal seen famille. nga xam ne ci kaw policier ma ne ma ne ñoom ñëpp seen famille ñi ngi dëkk ak seen jabar ak seen doom yi nañuy rey seen jabar ak seen i doom. affaire bi loolu la bépp policier ak gendarmerie fu mu dëkk. police gendarme militaire kër gu mu dëkk ak jabaram ak ay doomam yi nañ song kër gi taal kër gi rey leen.

policiers am nañu njaboot ñu ngi dëkk ak ñun ci quartier ak gendarme militaires yi ñoom ñëpp seen kër seen famille ngeen di song taal doo rey ñoom il faut les tuer il faut ngeen rey seen seen seen euh, bépp famille police wala gendarme bu nekk ci koñ bi doo xeex leen ngeen rey leen ngeen taal seen kër ñu xool loolu boo gën quoi. événement ba mu commencé léegi est-ce que dégg nga euh, police bu bu mën a ko sax dóor ba mu dee. ah loolu la rek. bu mu nekk. te te waa te policiers yi ñoom ñoom te manifestation yi ci police yi ñooy rey bu euh, waa Pastef yi te mhm. police yi kenn leen rey ak gendarme yi kon nan su loolu nan attaqué te nan dem seen seen kër famille ñu attaqué ko kooku kooku beneen système xeex la ok hmm. jërëjëf grand maa ngi yosal ok loolu la ko bi moom fii amul euh, fii amul bët di parce que waxoon naa leen ko fi nee naa leen waxoon naa leen yéen xam mais Macky Sall li nekk ci xelam mooy ñoom li ñu teg mooy bés bu ñu arrêté xeex bi loolu moo ñu tëj Ousmane Sébikotane tey ci suba live donc fajar def live bi bala may jënd li tax Ousmane Sonko rëbës c'est-à-dire dañ ko bëgg a tëj euh, euh, pour ñoom bu ñu paree pour exiler ko ñu exiler ko loolu moo fi nekk c'est ça. danger boobu dañ ko ñu ngi koy wax fii li mun a faj lii yëpp mooy jënn xeex jóg xeex booy yi nekk ci région yi nañuy dañuy rallier ñi bëgg ñi mën a ñëw Dakar ñu ñëw Dakar ñu continuer xeex bi loolu mooy dëgg diaspora bi taxaw taxawaayu gor euh, ñu jàppale gars yi booy ci ay moyens loi bu ñu voté policier bu dóor bal nit ngeen ngeen ngeen ngeen rey bépp kër policier foo leen gis jabar policier ak doomi policier rey leen foo leen gis jabaru gendarme ak doomi janar rey leen foo leen gis jabaru militaire ak doomi militaire rey leen ngeen fayu seen famille ñi ngi fi ñoom ñi ngi ci kaw ñu ngi ñoom ñi ngi dëkk ak ñoom bu ñu dóoree bal bu ñu tiiree bal ngeen rey ñëpp c'est tout ngeen xool seen kër ngeen ciblé kër policier ak gendarme militaire taal seen kër rey rey seen jaboot ñu xool ndax dinañu tiiree loolu la c'est tout fii amul amul ay bënn bët di jooy amul ay di di layam-layam di pleurnicher ci guerre la ñu ne xeex ñun ak ñoom la c'est ça aussi C'est la quoi waaw ça, mu leen donc euh, Mati Diop xam une information boobu Ousmane depuis information voilà depuis ko urgence voilà c'est normal ku grève de faim euh, euh, ku grève de faim comment une semaine mais da <laughs> waaw waaw ku def grève de grève de faim moom ku ko def une semaine moom da ngay dem hôpital ko waaw waaw surtout boo boo xam ne ni yow euh, <clears throat> voilà loolu la ko ñu combat bi na continuer rek nañu organiser ñu xeex rek surtout bu kenn arrière allo. ça va. oui. oui jël ma jël nañu continuer di xeex ci xeex bi rek loolu moo fi ama ah. fii leneen amu fi. lu voilà loolu moo fi am amul leneen loo xam ne fii dañ ko fi def ay ordre sénégalais fii on va se battre danañu xeex de Hum. Uau! portable Uh -huh. waaw Mollah Morgun na tëj gàttam na tëj gàttam na ka arrêté Mollah Morgun na arrêté voilà na arrêté wax bi portable boobu arme la na tëj gàttam ko il n'a qu'à se loolu mooy dëgg quoi ni da ngay xul da ngay noonu la defoon fi ay coloré la def fi ba gars yi dal ci kawam quoi moom musul dara quoi ah bëgg a gis leen ma ji xam liggéey bi du ay liggéey gis leen ma ban la kër. tëjël sa gat nga tëj moo laa gën mën nga tëjël sa gat portable bi noppil arme la quoi il faut qu'il se tait boo leen amee numéro moo laa mën gën ngeen yónnee ñu ko quoi mu tëj gatam quoi waaw aha demal waaw waaw waaw maa ngi Mm-hmm. Well, waaw not naa ko yooyu yëpp dégg naa pour ñu infiltrer ko la pour posane sëriñ bi waaw waaw te du moom rek du moom rek du moom rek du moom rek du sëriñ boobu voilà ok. Uh-huh. sabe? Dem da mu ngi Japon bu yàgg. na ok d'accord d'accord waaw légui da nga may bàyyi Canada gars liguenté euh numéro Mollah Morgan rapidement quoi voilà ok voilà may ma ma ma ma ma liggante ko quoi parce que la Morgan aussi il faut qu'il ferme sa gueule quoi faut le tëj gatam quoi des fois nit il faut nga am intelligence da fay am secret du lo jot rek nga génnee ko quoi du lo jot nga génnee ko quoi voilà il faut il faut arrêter quoi L'autre ne ne nga nga vilipande ko qui portable arme hein? portable arme là quoi alors nek fi pas gis ma fi non nga pas fi ay fi quoi comment il faut qu'il arrête il faut qu'il arrête il faut qu'il xanaa mo mo mo woo sawaay quoi waaw parce que il faut ñu wax ak la Morgun dinaa ka arrêté mom xam musul quoi dafa fogné mom moom dafa mus quoi ñi xex bi dafa foog ne ay ay ay ay vie ngay wut soxla ñu vie il faut être intelligent ci xex bi ñi nek ni il faut être intelligent il faut nga mëna anticiper mëna am lecture de l'événement il faut savoir anticiper ah comment rëy la meñ rëy yëy tuun fii nga di wax fi kërën kërën yow xam nga kan mo la jox euh, secret ci portable bi quoi yow yow yow tey sa jëmeñ quoi yow yow kat sanday tey sa jëmeñ sa gat bo tey bo information ci portable nga tey ko nga quoi mais quand même pas merder les gens ay kongen rek vous n'êtes pas intelligent da ngay foog ne yi ngay def noonu ko pour jéem a dóor ñi ñu jox la xaalis quoi Macky Sall ngay chantage mu jox la xaalis yow xaalis ngay wut nii toi Mollah Morgun comment yow portable bi ñu koy kii yow ëllëg nga tey tey dégg naa mu ngi ku kay ci ay portable bi def na ni kërën kërën lan lan nga ci bëgg a wax waaye kii la waay boy bi quoi c'est des imbéciles quoi comment noonu nga fi doxoon ñu jox la xaalis fii xaw ma ku am bu dee am am numéro Mola Morgan, ngeen ngeen affiché ñu ko waay ngeen jox ñu ko numéro wutal wut ni contact Mola Morgan, parce que buñ ko c'est un con quoi il n'est pas intelligent quoi ah voilà attends Mon écran. bon attends je vais voir si je peux oui allo allo Mollah na nga def ça en forme s'il te plaît quoi secret bi que ci portable bi bul ko divulguer quoi parce que arme la quoi oui arme la pour Ousmane Sonko quoi ci xeex bi ñuy xeex ni. Tel, tel tel portable quoi tel secret quoi bail du coup divulguer boule divulguer ben secret denc quoi parce que qui arme la tu ñun arme la ok ku ko mën a woo ku ko mën a jot ngeen ngeen wax ko quoi parce que il n'est pas intelligent ce gars là dof la rek mooy genre combattant yi dem ci terrain bi di def def ay conneries quoi il n'est pas intelligent quoi y a y a certains trucs yoo xam ne du rëy làmmiñ quoi bëgg a jaay fii rëy làmmiñ fi ma am information information dañ la ko jox ah, ay kong quoi vraiment vraiment c'est c'est c'est c'est c'est eh. xaar leen quoi waa jàmbaar waaw nu mu demee wa mais mais mais woo naa ba sonn quoi ba sonn woo naa ba sonn mu ko mujjee bàyyi vocal boo leen ko mënee jot ngeen ne ko mu tëj gémmiñam quoi waaye parce que une mais il n'est pas intelligent, quoi, le gosse là, quoi. non combat il faut avec intelligence et stratégique mais il fi tout di mais cest un imbécile quoi.

Euh, euh, euh Jotlen quoi Attendez quoi. Mm -hmm. Oui, kep ku mën a ko a rek way mu arrêté quoi lu def parce qu'il n'est pas intelligent quoi du dox ak xelam quoi nit da nga eh. Oui, mais tu l'appelles avec ce numéro, il prend pas cette tête de con là. y numéro vraiment dafa c'est malheureux quoi c'est regrettable que euh, am aïe aïe aïe aïe vraiment il faut qu'on freine le gars là parce que Momdal... Euh, Ousmane il est bon je vais voir avec euh... vraiment cest stratégie quoi oui il n'est pas intelligent خمون استراتيجي يا خوا أه... أتا أتا أتا أتا Oui, ça va Bouma Ça va bien Ça va Kosumaï Kep. Oui, oui. Euh, le gosse là, Bouma, tu as nouveau pas euh, qui balade là Oui, Ombo matériel, Ombo. Ombo, Ombo, Ombo urgence. Ah, non, non, non, il y a il y a urgence. Oui, parce que Kouine Kombo qui panique, moi je suis en direct, quoi, les gens se paniquent là. Kokbe et Kengom, quoi, on est en bobo, on dit tu me babou urgence là. Ah, eh. oui, comme ça, les réseaux sociaux, mais comme je suis loin, et bien sûr, et bien sûr, il y a encore un qui sort. Ou encore un qui sort. Euh, Sindé, non, Sindé. Aïe. Mais, oh, eh, eh, eh. Ah bon? Oh, mais. Ouais, moi, ou information comme ça, moi, que no Petit homme, petit, allez, bon. Petit, petit homme, d'accord. Ok, ok donc, euh, mot encore Mandia, parce que je crois que les gens là sont en train de paniquer là dans les réseaux sociaux là. Ouais. Ouais. Voilà. hum. Oui. Uh Ouais, ok, mais euh, c'est comme ça. Donc, il faut que les gosses s'organisent pour rallier Dakar, quoi. Ah Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, okay. Ok, d'accord. <coughs> Wait, there. How allô you? ok ok mais euh, Afou, afu est-ce que euh, Afou, afu ministre bon il mal fo Il ibari euh, urgence bon ah. euh, est-ce que jada parce que comme parce que afu nous hein mm-hmm, mm-hmm. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Non, c'est pas grave, on va chercher. Moi, je suis en train de chercher parce que l'autre téléphone là, je l'ai perdu là, comme ça, tous les contacts étaient là-bas. Donc, j'ai perdu le portable là. Hein. Euh, portable d'Ibentale, Kakamantano. Ouais, j'ai pas pu récupérer les contacts là. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a de fouilles. Hein? Et quoi? Ok, ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Ha, euh, ah, euh, fenke, ha, a Kinyana, c'est quoi, fenke, ministre, ministre. Ah, oui, oui. Ok, d'accord. Donc, vais à Akili, voilà, Akili va. Après, tu me rappelles là. Hmm. Il faut édifier les gens là. Comme garde ni paniquer, tu sais. Attendez quoi. malien xaaral ñuy waay dañuy liggéey ah oh yi te laisse pas travailler quoi waaw allo waaw waa sant aha ah. waaw maa ngi ci plateau bi Ou ben pareil Oui, allô. Wow, soir, c'est l'heure. Ça va? Mm, ok. Ouais, mais, euh, ouais, ça va. Euh, tu, as, tu as les nouvelles là-bas, là? Euh, tu, euh... maa ngi direct nii la gars yi ñu ngi posté rek na gars yi dañuy paniqué quoi pour euh, Ouspross la waaye hmm. gars yi naan mi ngi urgence dugg na fi jënd na fi détail moom moom moom moom moom moom Pross

man maa ngi lii sa message damaa ci sax damay gis message yi naan mi ngi urgence mi ngi kii po mi ngi urgence mais comme moo leen wax léegi. vraiment da ngay waaru quoi patriote yi. dunduñu ko fenn ci page euh, communicant yi amul xanaa bu doon loolu la ñëpp kii ko bind ko foofu parce que am na fu ñuy jëlee information. mais ah. contre internet bi nga xam ne ñun ñëpp la ñu tey dèjà bëgguñu wane dëkk buy tàpp. bu loolu rek problème la nga bëgg leen topp ci seen information yi. waaw kon ñun nëbb lépp luy xew Sénégal. dañuy nëbb luy xew Sénégal quoi eh, patriote yi ñoom tamit dañu mën a partager bëgg a topp événementiel quoi wax nañ la ko ba sonn. ñoom ñoo tiit fi mu nekk nii ndax dañoo def lu tegu fenn ci yoon amul fenn fu mu tegu. Ah. li nga wax ne man léegi la léegi la léegi cousin bi léegi laa jóg di wax cousin nii léegi cousin nee na moom déglu information boobu ah. merci mu cousin suñu cousin cousin bi cousin bi nekk foofu ak Ousmane. mën na ñoom jotuñu waaye cousin mën na jotuñu foog xam nga. non c'est-à-dire tamit euh, patriote yi tamit dañuy dañuy waaye mais Kayz Kof mooy kan il faut arrêter de nous dire Kayz Kof nee na.

Hmm? mais il n'a qu'à briser son son écran Cheikh Cheikh tu arrête de nous faire chier quoi ah, c'est-à-dire il n'a pas il n'est pas plus informé que nous il n'est pas plus informé que nous moi j'appelle la famille moi j'appelle la famille direct waaw xam nga ni noonu amoo ci dara dara dara. mais même ku toog sept jours sax lekkuloo mais mais il faut nga am nga am li wàññeeku ci yow. waaw c'est vrai de waaw kay loolu la ñu bëgg nag déstabiliser. Eh? ñoom nekk di déroulé di envoyé lu leen neex comme dañuy jënd internet bi yëpp. mais yéen il faut ngeen muus ñi ngi dagg eh, eh, internet mobile dañ ko dagg. TikTok bloqué nañu ko restreint nañu internet bi léegi ñoom ko guerre la communication la ñuy def yéen pros ah, na ah, ah. mën naa ngi xeex fii yéen xeex leen fële ngeen bëgg a tombé ci piège c'est-à-dire patriote yi dañuy tombé ci ay piège quoi ay piège yi ñàkk fayda quoi il faut que ñu comprendre tax ñu dagg internet bi TikTok bi ba pare jënd journaliste yëpp

mag yaa ngi ci dañu gaaw a jooy ñenn ñi di crise lii yëpp boo ko waxee yow xamoon ci ngay daane am na mag yu bëri yu jóge ci euh, affaire produit parce que ni ñu ko dugalee seen xol dafa ëpp ñu ñëw di joxe yow information bu ñëw nga sànni ñu benn benn benn benn yàqu yàq sànni leen ko ngeen ngeen di matt ci yàq bi ah, ñoom ñi jëlu leen ne amu intelligence boobu quoi hein c'est ça quoi benn benn jox leen rek ngeen jàpp ceex bi yuuxu fi ñoom ñi ngi toj dëkk bi. man de man man seen partage yi laa bokkul man du ma jël kenn sa sa benn information dina ko partager kenn foofu laa koy bàyyi dina ko lii sax ana site yëpp mën nañ bind noo même chose que ça parce que kanam site dara ñoom fan ñu jëlee yooyu information ñoom ñëpp pro dafa feebar pro mu ngi urgence Pape Alé mu ngi urgence dañ ko kii Pape sax mën naa d' accord je sais pas te xam ne mënu ma ko mënu ma ko firndeel ku ma tegal sama loxo ci saami di ma ko waat mais dañu mën a tiitalaat ak joxe cette information di wàññi patriote yi patriote bi ci nooy bopp nag fii ngay tëdd nga feebar dèjà ñëpp feebar ci affaire bi ñu ko def lu dul dëgg di wax mais buñ ci bëggee nag ay fausse information di ñëw di ci tegu day wàññi nit ñi te mag yi gën a te xale yi sax yi nañ mais mag yi nañ feebar ok am na ñoo xam ne dañuy crise yoo amal jàmm ah yow ci kanam su ma su paree live bi léegi naa la woo ci kanam ñu déggoo waaw ok alors donc combat bi nañ ko continuer quoi woy ñu focaliser wu ci l' essentiel li nga xam ne moo am solo quoi waaw naka la ñuy organiser xeex bi naka la ñuy war a jël débloquer te man duma dugg ci seen communication yi quoi seen c'est une communication n'y a que faille alors moi je rentre pas dedans donc euh, euh, boy blocus il faut blocus li ñu gagné ci combat bi ci terrain li ñu jot bloqué buñ ko teggi il faut pas que ñu teggi ko te diaspora bi sen taxway il faut il faut ñu organiser pour jàppale boy ñu xool naka euh euh euh naka lañ koy naka la continuer combat bi quoi ñi baña a ci ay pièges yo xamné daf ñuy tardel quoi voilà daf ñuy tardel Il li a ngeen xamul euh actuellement le euh, la peur est dans l'autre camp nekkul ci suñu camp dafa am bataille médiatique dafa am bataille médiatique à chaque fois part patriote dañuy daanu ci piège boobu quoi li tardel diversion tardel la fi kalang mais mais attendez euh, ma jël sa waa Kafountine man ma am information yi Kafountine man moom ci liggéey bu ci liggéey boobu laa nekk yéen nekk leen foofu di da ngeen am jot quoi vous avez le temps quoi oui restez là-bas am jot quoi photo, vidéo de Dessena, quoi. Dessena. Ouais, yo, nous sommes plus de 50 personnes, ça. Plus de 100 personnes qui n'ont qu'une. Parce que nous sommes plus de 100 personnes. Mais nous sommes comme il y a une top, il à peu près à 100 mètres, Nous sommes a une à peu près encore 100 mètres, il y a une a quoi. fii lañ añee fii lañ mais añ bi ak bi yëpp ci benn benn kii la la jóge ci benn côté la man sama ah, équipe ngi nii sama équipe ngi nii benn kii la jóge gis nga booy fi ñu fanaan ci tali bi la ñuy fanaan ñii ah, gis nga reer yi ñoo nekk fii di togg di ñu jox bu ñu cotisé ñu ngi nii bloqué ko Foundiougne camion jën du jënd embargo carrément Dakar benn camion frigo lu fay jënd ay cent et quelques camions ñooy jënd foofu ka Foundiougne di yëpp jën di ko yóbbu Dakar lolou yeb dañ ko bloquer xool la xool la boy xool la xek combattant yaa ngi gis ngeen Casamass, ke ka gis ngeen duñ ci bolé wax mi ngi ni regardez ces gosses là xool la fi lañuy fanal relève fi lañuy fanal matin midi soir camion du dem ben dara du jënd blocus total total mi ngi nii ñu boolewuñu ñu euh, ñoom amuñu tan nek ci internet bi yuuxu fii pros fii ñom ñi ngi seen xex xolal boy fi la ñuy be ba benn relève ñëw xoolal xol xoolal blocus yi regardez les gosses comment les gosses travaillent ici ils passent la nuit dañuy yendu fi relève ñew ñi fanan fii ñeneen ñu fanan. c'est comme ça c'est ça le travail Regardez les militaires. Ils ont bloqué les militaire gis nga bloqué militaire militaire les jeunes militaire regardez puis sur la route là de Kafountine là camion du jënd benn camion fruit du dem camion jën du transport en camion du dugg dans le dugg même piéton piéton boo ne la foo piéton waaw piéton

mais sinon ça va waaw ah, nous nous sommes là on ne dort pas on ne dort pas. dégg ah, comme ça nous sommes sur le terrain. dégg ngeen booy. si on commence euh, la nuit c'est là-bas qu'on passe la nuit sur la route. dégg ngeen fa ñuy fanaan. sama équipe on passe le repas et le dîner on passe ça là sur la route. añ reer ndekki foofu lañ koy def relève. à la maison tu fais là-bas quelques minutes après tu es waaw.

lépp la ñu téye regardez ñu ngi ni xool leen seen bagage yi yëpp ay ataaya yëpp añ ren ndëkki foofu lañ leen fekk fa la ñu fanaan voilà añ ren ndëkki fa la ñu fanaan waaw mais pare yéen ngeen bëgg ah, est-ce que xam nga ñi ñu ñu téye booy lu ñu téye camion frigo yi Kafountine muy camion frigo muy transport en commun muy camion buy fab fruit orange wala mango ak yee këriñ dara du jaar particulier du même piéton piéton bonjour jogé dox ñina la foo jëm nga ne la acca ce wayo nga dellu kenn du dem du bouger waaw kenn du bouger waaw kenn du bouger lolu moy liggéey té tap waaw ngeen bëgg ñom ñi ñu ñëw Dakar quoi mais Dakar amul gaay amul ay quand même dis donc hein? il faut que aussi tamit ñu waxante combat bi ci gars eh. ah voilà nous sommes. tal dañuy les gosses ils se battent Quand donc battez-vous quoi Morgan hmm? gën quoi nous continuer à bu parce que nous loolu lañu bëgg pour nous décourager ñi bu décourager xex kenn nous ko décourager waaw xex kenn du ko décourager <laughs> nous kenn du ko décourager continuer nous xex bi rek dañu organiser wu ñu ñu suñu loolu gën du quoi waaw hmm. du quoi il faut ñu continuer. Mm-hmm. il faut il faut que ñu continuer il faut ñu continuer ni xeex loolu la quoi man loolu la gëm ñi focaliser wu ci ay ay ay diversion yoo xam ne gars yi divertir fii di la divertir fële yéen ki ki ki ki nekk fële nee na ñi xeex mais na ñi xeex. Ah, Banasep. <laughs> J'étais bloqué. Bon, attends. Haral, quoi Attends, attends, attends. Attends, attends. Banasep. Attends. Yo, itam, l'autre, on devait me bloquer là. Ma chala, d'un sop. Banasep. D'un sop. Vous n'avez pas bloqué. <laughs> <laughs> J'étais bloqué par erreur là. Bon, ok, d'accord. On va te débloquer par erreur aussi. Attends quoi, je sais pas si le gosse est, au bureau là, il va te débloquer quoi. Est-ce que, est-ce que yo, est-ce que nous, Non, attends, attends, attends. Qui là Galsen là Non, Harald. <laughs> D'abord, <laughs> je bloque pas. Non, j'ai des modérateurs quoi. <laughs> Ils sont féroces. Bala Sam Bala Sam attends j'ai <laughs> j'ai de dafa am benn modérateur boo xam ne moom moo gën a rakkaaju quoi xaar leen comme euh, je je kii moom dafa dem gisatuma ko waaw mais. oui Galsen. Bana Sam da nga ko bloqué débloqué ko waay Bana Sam TV. Ah. gis nga ko. waaw waaw ma waaw euh, euh, maa ngi koy xool maa ngi koy xool. <laughs> débloqué ko mu ngi yuuxu rek xam na yaa ko bloqué moom nga ma doon moom nga ma doon expliqué ma ne la Banda c'est patriote la quoi. waaw waaw maa ko bloqué waaw bloqué woon naa ko waaw. waaw débloqué ko yow kay yow yow yaa andi coow li <laughs> Banda Samb gars yi dañuy tàng de fii <laughs> gars yi boo seen commentaire yi. gars yi dañ leen di bloqué équipe léegi équipe bu féroce moo fi nekk The Lion moom ñëwagul xam nga The Lion moo gën a feebar ñëpp moo booy boobu moom xam nga fu mu nekk ci léegi xala ok d'accord The Lion <laughs> ok débloqué ko quoi <laughs> baax la bana sab yow gars yi li ñu lay bloqué dafa bëri da nga sob <laughs> baax la ci lu lay dugg quoi هم؟ بون طيب شيء يلا خرب منصب بوي مهم لا خمل فم لك mom moom xam naa ne ay est-ce que demul demul demul amul amul chantier bu amee chantier dem ci àll bi rek c'est fini gaañ <laughs> oui Adji Bassen oui tu n'as rien fait mais c'est pas du man maa bloqué <laughs> tubaab <laughs> baa la bloqué quoi gars yi ñoo la bloqué xaaral ñu débloqué la quoi ci yàlla Adja Bassène tam loo def oui a ah, champion bi waaw way maa ngi gis maa ngi maa ngi la doon woo bilaay léegi laa ko gis léegi laa leen ngeen wax ak Mollah Morgan Mollah Morgan portable bu mu yor portable bi information yi la yor na ko téye quoi bu mu ko divulguer parce que arme la. ok. arme la quoi.

c'est-à-dire que. oui boo ko téyee dama koy utiliser pour combat bi. merci la quoi. te pourtant te pourtant xamul ni portable boobu. la ca la nekk gars dañu dañuy actuellement fu mu ne te portable bobu bobu bobu dossier la bo xamné Ousmane daf ko téye ci loxo. mais est-ce que xam nga est-ce que xam nga ni ñom ci taxoon ko ñu précipité du ko jël sa waay est ce que xam nga ni téléphone bi moo tax est ce que xam nga bu woon téléphone bi duñ ko jël info est ce que loolu xam nga ko yow. mais loolu la téléphone bi la info yi nekk foofu bomb la. non bi ñuy dugg ci sa waay. waaw moo dugg boobu dugg boobu ñu def noonu infraction la c'est-à-dire que infraction bi ñu def noonu dugg ci kër sa waay déjà loolu noonu. infraction la téléphone bi moo tax. voilà infraction la jël caméra yi dugg fa ñoom seen xel ak seen fit musu leen jox. que tey bu fekkoon pour jàpp Ousmane kese kese kese dañ koy bàyyi ba mu génn këram ñu jàpp ko feneen sa comprendre mais le fait que ñu dugg ci biir kër moo leen taxoon dugg. oui après ñu ñëwaat ci kër gi encore lan moo tax ñu ñëwaat ci kër gi am na génn dugg. sa comprendre daf may waxee. téléphone bi. am na lu ci ne loo xam ne te effectivement téléphone bi est-ce que xam na ni c'est un téléphone de service. dafa garaaw téléphone boobu garaaw na de. man déggoo man man am na lu ma ci xam am loo xamante tax ñu xam nga téléphone bi moo tax ñu jàpp Pape Alé téléphone bi la Pape Alé bi moo jàpp ko mais nekkul ay affaire la fekk waaw waaw eh, eh, Oulimatou ñu koy débloqué du man naa ko bloqué xaaral modérateur baa ngi koy débloqué aha waaw Pape ñoom téléphone bi moo tax jàpp ko parce que booy xool gis nga le lendemain le jour avant ñu koy jàpp booy xool gis nga Pape am na lu mu commencé wax ci téléphone bi. waaw. ñoom ñu xam loolu dégg booy xool même frère bi frère bi mu koy wax est-ce que waaw mais téléphone bi dafay Ousmane a cher te jëlu ko ba xam nga téléphone bi. É um uhum. téléphone de service téléphone bi téléphone service la téléphone bi nekkul téléphone bu nit moom ay ay yëpp personnel am nekk. Hum. ce sont des documents de la gendarmerie ak ay informations gendarmerie bu ci nekk. ñoo ci nekk woy woy. waaw ba pare c'est codé même par la gendarmerie ak li ci kaw seen supérieur yi ñoom moom lañ doon communiquer moom la ñuy joxe réponse gars yi monté ak yi wàcc muy wàcc da nga ko fay bàyyi kii ñëw jël ko muy wàcc da ko fay bàyyi keneen kii ñëw jël ko est ce comprendre. léegi seen message yi communication yi ak ordre yi ñuy joxe ñi ñuy communiquer ñu ci bari. mais parce que il paraît même même mais y a beaucoup de marabouts mais, comme ça là. mais mais mais, mais, mais mais téléphone mais, quoi mais, mais, mais, quoi. mais, mais, mais, mais, téléphone mais, mais, mais, mais, après. oui su ma nekkee gàll si nag xam naa ni problème mu. allo yaa ngi may waaw ñu ngi lay waaw. parce que xam nga xam nga le problème qui se pose xam nga Mollah moom. Euh, dafa xaw a sensible ni koy gis noonu. Mhm. moom moom euh, day am dara téye ko mu nekk arm wala mu xam dara war ko wax mais après par la suite day am ñu koy woo ñoo xam ni dañ koy woo di ko ñaan. naan ko dimbali ma defal lii bul def lii bul def lii est-ce que comprendre xam nga xeex bi bu tolloo fii bu tolloo fi c'est-à-dire que. mais en tout cas daal euh, xeex bi téléphone bi amul droit wax li ci nekk na tëj gàttam quoi mu déglu quoi. non je vais faire le maximum. Fais le maximum Il n'a qu'à arrêter parce que. bi ci bi Ousmane Sonko dafa portable tax Ousmane Sonko portable portable dans le Japon. Ah, téléphone bi ci dafa am mais am lu lu mais pour te rassurer pour te rassurer téléphone bi téléphone bi mu nekk ak ci hein, Mhm. ci ay loxo yu sur la te du ci loxo moo laa ñi moom maa la koy garantir c'est-à-dire que moom fotol nañ ko téléphone bi yónnee nañ ko photo bi téléphone bi ak li mu mel aussi c'est vrai que am na information yu ñu ko ci jox yoo xam ni junj la waaw te naroon nañ ko jox bu gën a bari mais dañoo dem ba ci biir sax moom ci jëmmu boppam waxuñu ko lépp li ne ci téléphone bi yëpp moom waxuñu ko ko dama la nëbb de ki yor téléphone bi ci boppam ki ko téye en main mhm. c'est quelqu'un de très lucide xam na ni muy xeexee man li ma lay wax xam naa ko xam nga. Mhm. ki yor téléphone bi du mës def erreur. bay jël téléphone bi di nekk nekk lépp mu koy divulgué di wax parce que xam na quoi en fait xam nañu. waaw mais man moom dinaa wax ak moom jërëjëf naa fexe le man dinaa ko na wàññi quoi est-ce waaw parce que euh, am na loo xam ne boo ko yoree mu nekk sa xeexukaay xam nga te xeex bi jeexagul doo génne lépp quoi. waaw doo génne lépp mais loolu moom xam nga pour les marabouts la c'est compliqué mais loolu loolu téléphone bi bomb la. bomb hein, parce que fi y a des échanges quoi y a des échanges. ci biir hein. ay ay ay ay ay généraux ay généraux ay ay complot d'assassinat Ousmane bi ñu ci biir ah complot assassinat ay sëriñ daa wax ay yu complot pour assassiner pour ñu assassiner Ousmane. ay sëriñ laa lay wax ni waaw parce que xam nga ci xam nga xam nga xam nga la commandant rek xam nga gis nga ñoom xam nga problème mhm. bi mu wootee ba wax ko ni effectivement xam nga ñoom au fait ñu xam sax ni Ousmane jël na téléphone de service bi. Mhm. parce que daan bi daan bi après. dañ doon jéem a communiquer ñu gis ni kat mënutuñu communiquer ak daam bi ci lañ ko woowaat jot ko ci beneen téléphone. Mhm. affaire bi jël le temps ah xam nga téléphone bi newul ni sa waay da ko jël ci saa si rek di ñëw jël si ko mais le commandant Mbengue bi mu demee ba xam ni ba xelam ñëwaat ni téléphone de service bi nga xamante ni y a des documents secrets yi ci nekk moom la Ousmane jël ci lañ door a ñëw def intervention bi à l'urgence immédiate parce que loolu taxu leen woon jóg jour moom comprendre Oui. plan bi c'est vrai que c'est un plan la won mais dañ ko précipiter après. plan wu japp Sonko mais le jour bi ñu jëlee téléphone bi bobu noonu yow bo gisee asso bi ñu def parce que duma duma la neub amna ben boy bo boo xamante ni bi bi ñuy def asso di dem kër Sonko mais boy bi il était en congé mu ngi woon vacance dañ ko wo kërëm ñu ne ko ñëwal en urgence dañu am intervention mom ci la jël motom tal ko. dem man li ma la wax benn booy moo ma ko wax sama élément la te ci ñoom la nekk moo ma ne affaire bi nekkul woon lu ñu préparé parce que moom mu ngi woon congé ci feetu tamxarit yi mais le fait que ñu woo leen boobu ñu ngi doon rassembler seen éléments yi nga xam ni ñoom ñooy def intervention yooyu ñu bëri dañ leen woon nekkul woon en fait de mais téléphone bi moo tax il fallait que ñu wër ko ba jàpp ko parce que li ci nekk bëgguñu woon sa waay jot mai c'était trop tard waaye tamit il était très intelligent bi mu ko jëlee rek génne nañ ko affaire kër gi affaire bu yàgg. bu yàgg. waaye bi mu ko jëlee génn na kër gi. moom bi ñuy ñëw di wër yooyu foofu foofu foofu dara ñëwut ko foofu dara ñëwut. oui oui oui mais il faut nga wax booy bi la mu tey la meññam quoi. waaw non je vais parler avec dinaa ko wax dinaa fexe le maximum. na lu ci sax waxati quoi xam nga. waaw mu tey la meññam quoi parce que téléphone bi arme la quoi que c'est confirmé c'est confirmé man laaj naa ba ne mais am na quoi te loolu nekkul sax lu bees loo xam ni gars yi dañ koy door a xam pour mu duma la nëbb xam nga Ousmane il était au courant bu yàgg ci affaire boobu xam nga li ma la bëgg a wax. waaw waaw que il est le plus informé Ousmane il est le plus informé moom parce que. dafa am ay informateurs yoo xam ni ñu ngi jege ci gendarmerie nekk ci biir mais c'est des patriotes. Mm-hmm. xam nga li ma la a wax. Mm-hmm. waaw am na ci ñoo xamante ni dañuy wax lépp lu fa am ñoom mooy seen problème ah au fait loolu moo nekk sax seen problème crucial Macky Sall li ko jaaxal mooy. lan moo tax lu muy waaja def wala lu muy préparé di ko def rek. Mm-hmm. Ousmane da koy yëg wala moom ci boppam xam na ko. loolu seen problème la. waaw parce que duma la nëbb bari na ci ñoo xam ni même ba ñi leen gën a jege am na ci ñoo xam ne fi mu toll nii xam nañ ni combat bi Macky Sall dugg ci génn ñoom nag dañoo teel a génn xam nga mhm. bëgg wone ni kat dañuy jàppale Ousmane xam nga lépp lu ñu xam dañ koy wax ak yooyu parce que ñuy bël su protéger xam nañ ne lii dafay jeex te bu jeexee bu dugg ëllëg ñoom ñu bokk ci ñoo xamante ni sont ils vont avoir des problèmes ah dinañ ci bokk de ah, parce que ñoom ñoo ànd ak Macky Sall ba mu tàng quoi def sen toki dañu ba pare bëgg ci ko ñom dañ ci bok de non duñ ci genn ils vont pas non non non duñ ci genn duñ ci genn duñ ci genn duñ ci genn duñ ci genn non moom kañ euh, euh, ça ne va pas du tout être facile non du yomb de du yomb de mo tax nak xam nga xam nga champion xex bi li mu tollu ni ni euh moy li ma doon wax rek euh, tactique la quoi tactique la tactique la parce que gis nga sur le terrain Euh, c'est-à-dire que ñoom fii yëpp dañ ko préparé woon xam nga moo tax xeex bi laaj moyen may insister toujours di wax gars yi dañuy dugal xaalis ci paypal bi ñu mën a am xaalis. boo voilà te paypal bi kuy dugal xaalis ci paypal bi bul def commerce. bul visé bul visé boo leen defee commerce rek. du dugg dañ koy téye quoi. waaw bul def business képp bul def business. bul def business am na yeneen rubrique yi. waaye cousin wala famille wala quoi ngay def quoi mais boo business c'est fini dañ koy bloqué hein? na support support support support support support wa, support famille ngay support famille ngay def am nga boo rek dañ koy dañ koy vocation commerce fa commerce rek hmm. mais épargner à part parce que pour livrer nga fay ñu fay effectivement bi livrer ñu fay bu livrer bi facture bi léegi yéen fu mu ne nii gars yi mu bu livré yéen yéen yéen a ngi ñu ngi def collecte ngeen def commerce. waaw doo mos a doo mos a doo waaw xamuñu nag ñoom ñu ci bari. ñu bëri xamuñu PayPal ni muy dexee quoi waaw donc famille ngay def famille rek. donc famille wala. voilà famille ngay def sinon bu dul loolu xaalis bi day jël temps te après dañ koy retourner waat ci. ci voilà loolu la quoi voilà dañ koy retourner waat ci ñoom. Galsen dinaa ko jox numéro bi am na kuy communiquer quoi. bu paree rek ma ma ma woo ko parce que pour ñu mën a débloquer. voilà

mais yàlla def na ñun am nañ fa élément yoo xamante ni ñoom ñu mais tey gis nga ay grand yoo est-ce que comprendre que Grand Dakar. Hmm. bëri na zone yoo xamante ni du ma leen nëbb de mais gis nga cent millions lay yor ci saak ah dem ci booy yi nga xamante ni ñoom ñoo actifoon ah di leen dugal ci gaam yoo xamante ni booy tey bu xeex jotee maanaam duñ ko tal xam nga fi may waxee. xam nga moo tax nag ñun ñun tamit foofu ñu am moyen bu ñu mën a. xam nga def suñu contre offensive boo xam ne dafa am feneen fu ñuy jaar pour mën a contourner loolu ba nga xamante ni tey par exemple ñun tactique la ñuy am parce que tey zone bu nekk zone bu nekk hmm. tey bu bu ñu woon rek ñu ne génn war na fekk fu nekk ñu am fu sori koo xamante ni moom mooy nekk te est comprendre mooy nekk chef d'élément boo xamante ni exemple tey grand yo parcelle géejiwaay Pikine mm, mm. am fa ñoo xamante ni ils sont bien outillés am nañ téléphone am nañ moyen de déplacement am nañu xaalis tey bu ñu génnee war a xeex war ñëw ci xalaat oui Banaar TV naa la débloqué xaaral kii pare mu ngi communiqué ma après ma woo Pape mu débloqué la waaw waaw te xam nga loolu moyen la laaj tey exemple tey yow di nga ne élément yu nekk grand am nga tey par exemple élément bi ne yi nekk géejewaay mm-hmm. tey bu ñu génn parcelle génn Médina génn zone zone bu nekk génn ñu ne leen mooy tali tel nañ ko bloqué pour deux jours te ci bu ñu génnee rek dafa am ñeneen ñoo xamante ni mooy maas boo xamante ni maas boobu maas suur lay doon boo xam ne ñoom bëgg nañ génn mais am ñu ñëpp ñu ñu génn. ñooñu noonu dafa am la mooy tax ñu génn ñooñu pour ñu génn ñun. ñoo leen di génne génne boobu nag élément yooyu nga xam ne ñun ñoo leen di yor en main ñun ñoo mm-hmm. la affaire bi di mën a am impact ma a am effet nga xam ne bu ñu rek du sedd mais exemple tey parcelle mën na génn di yëngal mais pour mu dem Grand Yoff dafay compliqué wala géejewaay zone boobu léegi zone bu ne pour ñu am fa ay cellules yu waaw mais xeex bi man dama jàpp man dama jàpp ne xeex bi biir ville la quoi comme ni ñu def keroog ci vendredi. waaw dem ba Sandaga. waaw xeex tamit mais tamit ville. xoolal ville ville xam nga tey ki jóge parcelle jóge Géejawaay jóge Grand Yoff ah jóge Centenaire jóge Dakar tey ñi nekk ville kese kese kese ñoom mënuñu dem ville ba jeexal xeex bi ville saa que ñu jóge parcelle foofu ñu jóge parcelle jaar ci beeden bi. Hmm. ñi jóge Grand Yoff dugg si ñoom ñooy def ful. mën a tase def benn genre maas boo xamante ni sumool lay nekk sumool yu bëri dox da biir ville parce que comprendre nga mm-hmm. maas bi bu amee rek gars yi force de l'ordre yi dootuñ leen mën a téye mais bu amul maas exemple tey Médina kese génn xam nga centenaire génn ñoom mënuñu accéder pour dem ba ci biir mais tey maas boobu bu ñëwee rek fekk si leen jaar RTS jurubu noonu raataale RTS xam nga dugg biir ville yomb. ok day yomb. ok d'accord waaw yomb mais moo mais cellules nag faw ñu taxawal ko comme wax noonu moyen lay laaj. ok ok. ok ma jéem a débloqué kii quoi. kii du yuuxu ok ok ok merci ma xool Pape ndax mi ngi fii. lui aussi. oui pap, pap, alors na nga def ça va waaw maa ngi lay jéem a la xaw ma ndax yaa ngi bureau wala nekkuloo bureau la waaw euh, Banaf Banafa TV Banafa TV pour nga jëm ko débloqué quoi waaw Banafa TV oui ak euh, ak Galsen Galsen nga woo ko quoi waaw waaw soo na jox numéro pour nga woo ko après hmm. Hmm. loolu Oui, gagne. Voilà. Donc, Denis Tédian, hein, parce que euh, il fait 1h49, 2h moins. de Goudina, aussi de à quelques voisins, Je fait Et Je vais recommencer, quoi. Bon, déjà, c'est une il a réglé ce problème. Je me suis de la réglé, de la Goudina. ok, merci. Gagne, merci. Hein. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah bu la ak yonent bi quoi Comme naa ce matin, matinal bi na def café live quoi ci matinal bi ok allez merci Banafa dina la débloquer les gars.